sama diggante moom kenn xaju si bàjjan tomate asa ku la waxatee bàjjan tomate moom man maay waaye kii non yow noppi suñu famille yaa yàggoo see dugg dem nga ëmb bàyyil ba am doom nga soor a wax si suñu famille da ngay noppi ki sama bàjjan ki sama bàjjan